réew mi day baax Babacar Si jël na dama la yow yaay borom leeri maam xalifa Babacar Si jël na dama la sa jamono amul beneen xalifa maam xalifa waaw waaw yow yaay borom leeri maam xalifa Babacar Si jël na dama la ku fi gën a bëgg Serigne Babacar fi tasul ca kaw loxo ca kaw seen sëriñ maam xalifa Abakar Si jal na dama samedi ba samedi la daan wata xalifa ca kaw Babacar Si dal ba ñi nara baax yaay seen sëriñ maam Khalifa Babacar Si dal na dama wa imami qad kuntu min ahli ndari ahli ndari wa maskani bi ala dari andari Stop! Stop! Aziz Aly Ndiaye ñi bokk teen dañuy laxasoo goj këram a ngi nii ma sës ci gannaawam tey la mu sagal ñu fii yëpp ñi fi taxaw biir Tiwaawan kenn waatul ci xéewal yi nga xamante ni mu ngi ci moom dangay ñëw taxaw mu ne la jëndal buum nga jënd buum mu yëkkati nag jox la nag woo xamante ni boo ko doon jënd tey cinq cent mille lay jar kon sagu xadra bi la sagu diine ji la sagu tarixa yëpp la ni mu ko defee fii noonu la koy defee Touba noonu la koy defee fépp fu mënti doon kon dañ koy ñaanal yàlla lu mu mën ren yàlla na mën lu ko raw déwén yàlla na ko cat seexlu yàlla na ko yàlla suturaal sëñ Babacar si daan na ñaan ne yàlla nañu yàlla làq fa yàq eggul ku yàlla làq fa yàq eggul doo yàqu Aziz jërëjëf. jërëjëf imam jërëjëf non non non ñoo ko bokk eh c'est normal. ñëw ci kër gi fekk si ñu fi. vraiment kontaan nañ bu baax a kontaan nañ allah. ay ci kontaan nañ bu baax ci ñëw fekk fi imam moom suñu doomu baay la suñu xarit la suñu mbokk taalibe la suñu mbokk pas-pas la nekk suñu mag nekk suñu dëkkandoo ñun ñooy ay rakam ñun ñoo ko gën a oyof ñooy ñëw nuyu si ko ndax dëkkandoo mbokk la moom nit ku baax la nit ku am valeur la nit la koo xam ne dañ koy sagoo di ko tiitaroo loolu moo tax ñu ñëw déplacé wu këram seet si ko ndax moom ci suñu mbokki xol yi la bokk ñu ngi koy sant di ko gërëm di leen xamal ni kontaan nañ bu baax a baax ci gàmmu gi te yàlla na yàlla defar lépp incha allah. incha allah gannaaw gannaaw bi ko dénkee yàlla. dénk ko xadra bi ci ndigalal sëñ Babacar Sy Mansour. ak njabootu Seydil xaaj Malick yu sëñ Babacar Sy yëpp. ñu ngi koy dénk suñu président. suñu xarit suñu wëllëre président Diomaye Diakhar fay di ko dénk sama wëllëre sama xarit président Ousmane Sonko jàppale na sa njaboot gi fi nekk yëpp def na li ci war yëpp eh, yàlla na ko yàlla jàppale te nag wax dëgg yàlla ñu jàppale ko ñu gën ko jàppale buñ ko jàppalee rek Touba dana dox Ndiassane dana dox Laayeen dana dox Tiwaawan tamit dana gën a dox jërëjëf Aziz encore une fois merci infiniment merci imam ba ñu bàyyi